يا الله محمد صلى الله عليه وسلم باتي كي صحابه ام يتد يويو رضوان الله عليهم اجمعين تاي نيغي نيو تي جيغن بو خامتاني جيغن بو ماركي استوار لا تي بير صحابه يي جيغن لا بو خامتاني تي ني نيك توب تي الاسلام waye mom moy ki mujjé genn aduna ci jigéenu muhajirat ñi nga xamné dañoo gadda yon and ak yenenbi sallallahu alayhi mom moy jigen bi njëkk a ci bir Medina ginnaw gaday bi tam kooku mooy Asma bint Abi bakr radhiyallahu anhuma Asma domu Sayyiduna Abi bakr la radhiyallahu anhu aw anhuma mo ngi gane aduna 27 ans njëkk hijra 27 ans njëkk hijra kon ba yàlla di yondi yenent bi sallallahu alayhi wasallam fofu bobu boobu fekk moom mu ngi am 17 ans radiyallahu anha mu nekkoon borom xam-xam waaye itam ku mënoon a muñ la te ci biir histoire bi dinañ gis tamit taxawaay yi mu taxaw taxaw yu rëy ci wone ni mu mënee muñ radiyallahu anha Zubair ibn Awam moo nekkoon borom këram moom moo jur am na juróomi doom ak Zubair waaye ki ci gën a siiw mooy Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair mooy ki nga xamante ne ba Asma ak Zubair àndee ci gàddaay gi fekk asma moo ngi nekk en état boobu asma mu ngi ëmb abdullah ibnu zubayr radiallahu anhu am na ci ruwaay ci ñu ne ba mu egsee rek ci la ko wasin am ñu ne quelque temps après waaye abdullah ibnu zubayr mooy ki njëkk a gane àdduna ci biir saxaaba yi ci foofu noonu ci madinatul munawara ba yenentu bi sallallahu alayhi doon gàddaay ak abou bakr moom moo leen doon yóbbul li ñuy lekk ca xuntu wa ñu nekkoon bés abu jahli ak gàngooru waa quraysh ñëw nañ ci moom laaj ko ana sa waajur bu góor mu ne leen gisuma ko abu jahl pes ko pes bu metti pes googu sax dafay wone abu jahli mbon gi mu bonoon waaye dafay wane ne yambar la góor bu yambar rek mooy dóor jigéen moo tax xare bi njëkk muy xare badru ci la abu jahli daan te rey bu rey reyu tàppet lañ ko reye ndax ñaaw gi mu ñaawoon jëmale ci ay jigéen jëmale ci ay ndaw waaye asma mu muñoon loolu ba bës mu indil yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak aboubacar ëmb bi nga xamante ni moom la def seeni ñam pour mun a tukki mu taw am lu mu ko takkee mu dagg ci yéreem takkee ko loolu yenentu bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee gis ko mu takkee loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko ne ko yàlla na la yàlla wuutalal ñaari yére ca aljanna moom lañ ko doon dàkkantelee ذات النطاقين رضي الله عنها مم اك عائشة رضي الله عنها صحنا يا صلى الله عليه وسلم يبوك بين بايد ابو بكر امنا فرير امنا يت فرير ينيو عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن ابي بكر عبد الرحمن ابن ابي بكر اك ام كلثوم اك عائشة كون ابو بكر تبقى بوبام خمال نني كون جروم بن دوم لا امون نيت يو جيجين اك نيت يو غور رضوان الله عليهم اجمعين موم عبد الله ابن زبير يالا دفنا دوندنا با جناو xilaafatu Seydina Ali ba Muawiya génne àdduna waa Màkka jaayanteeg moom mu nekk khalifa mooy doomu Asmaa bii ni waaye yàlla def am ci ñoo xamante ne dañoo ak moom ñooy mooy ñoom Abdul Malik ibnu Marwan ñoom dañ doon réclamer xilaafatu bi ba Abdul Malik jël koo xamante ni xam foo askane waaye ci jëf ji moom munoo ko askane lu dul ci ñu bon ñi moo xam tuub na wala tuubut waaye jamono bii moom ci ñu bon ñi la bokk muy xajjaaj athaqafi xajjaaj gisuñu ci kaw suuf ku ko gënoon a mën a tuur deret xattaa ci biir saxaaba yi dafa doon rey te jullit la naka noonu daawud naan sàngara daawud njaaloo da doon jàng alquran ku déggoon alquran la waaye moom mushkilaam yépp mooy dafa mënoon a rey te abdul malik ibnu marwan moo ko fa jiital ba nga xamee ne jiyoo am na seen diggante diggante abdul malik ibnu marwan ak abdullah ibnu zubair abdul malik ibnu marwan dafa euh, xajjaaj waa Màkka pour mu xeex ak ñoom ba xeex bi taree lool ci histoire asma dafa dafa yaatu lool wax dëgg yàlla li ñu ci mën a wax dafa bëri lool waaye dañoo am lu bëgg a jàngale ci moom rek yàlla xëy dinañu may jamono boo xamante dinañ def ay majalis ay toogaay yoo xam ne dañuy ñëw ci saxaaba yi carrément wala bu ko jaree après ay live waaye asma dom ji ñëw ci moom ne ko gars yi day nañ ñu nit ñaa ngi rek di dee lan nga gis laa war a def yow yaay yaay ji ne ko bu fekkee ne ci dëgg nga nekk demal nga ànd ak say ñoñ ngeen xeex bali yàlla dogal bu fekkee ne nag àdduna rek a tax nga jóg yaay yées ci jaam yi te sànq nga sa dund sànq nga dund ñi nga àndal mu ne ko yaay wallahi àdduna taxumaa jóg waaye damay bañ mu ray ma xajaaj ray ma ba pare wékk ma ci ci ci ci mbeddu màkka yi yaayam ne ko xar buñ ko rendee ba pare dootul yëg mettit buñ koy wekk pour fees ko demal nga xeex ba yàlla may la lim la ciy may moom abdullahi ibnu zubair radiallahu anhu mu dem xare ba benn jamono ñu noot leen xajjaaj al saqafi rey ko tekkali bopp bi ak yaram bi te kii nee naa leen saxaaba la te li gën a doy war mooy moom ba mu ganee àdduna ci Medina boobu dafa fekk ne waa Medina dañoo tëwoon a am doom ci jullit ñi fa nekkoon maanaam seen soxna yi juratuñu ba ñuy wax sax naan est ce que yahud yi jabaruñ leen moo tax ba abdullah ibnu zubayr gane àdduna dañoo kontaan yëkkati ko di daw ak moom ci mbeddu medina yi di kàbbar di wax allahu akbar di wane seen mbégte naka noonu ñu indi ko ci yenentu tubi sallallahu alayhi wa sallam yenentu bi moo njëkk a tokkal abdullahi li njëkk dugg ci gémmiñu abdullah ibnu zubayr ci gémmiñu yenen bi sallallahu alayhi wa la génnee yenentu bi tuddee ko abdullah kon gis ngeen kii ni mu mel ci yenentu bi ak yaayam itam nu mu mel ci yenent bi ndax yaayam doomu Aboubacar la Aboubacar bokk na ci ñi ëpp cër ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallama waaye ànd ak loolu xajjaaj daf ko ray rey bu ñaaw mooy dèjà tekkali na bopp bi ak yaram bi waaye daf ko wékk daf ko wékk koo xamante ne màkk ku romb gis ko radiyallahu anhu waaye am na ngërmaande waajuram bu góor moom Abdullahi am na ngërmaande waajuram bu jigéen ndax bés boobu mu ñëwoon di tàggu yaayam yaayam ñaanal na ko ñoom ñaar ñu foonante akolaat xolal tristesse bu mel noonu parce que xam nga ne sa armée doom ji noot nañ ko ba pare dara desu ci lu dul dee waaye bu loolu amee itam xajjaaj yamu ci dafa woolu yaay ji pour mu gis li mu def waaye yàlla def na boobu fekk asma daawut gis bët yi nëbbu na parce que asma ba muy génn àdduna moo ngi am téeméeri at téeméeri at la génnee àdduna moom mooy ki mujjee génn àdduna ci jigéen ñi nga xamante ne gàddaayoon nañ ànd ak yenent bi sallallahu waaye ba nga xamee ne xajjaaj jëflante naag moom jëflante bu ñaaw abdul malik ibnu marwan aussi dafa bind xajjaaj ne ko pour mu wàcce jëmmu abdullahi bi ñu sangu ko jullee ko gëttu ko rob ko waaye tamit na may jàmm waajuram bu jigéen boobu waaye yooyu ay fitna la yoo xamante ni xewoon na ci biir saxaaba yi ak seeni ginnaaw moo tax ay mbir la yoo xamante ni du neex ci xol ñu ciy waxtaane bokk na ci li ëpp solo ci histoire am mooy moom mooy ki suturaal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ba nga xamante ni yéeféeru yàlla yéeféer yi nekkoon noonu yàlla yi nekkoon Makka ñoom Abu Jahl jotuñ ci ñoom moo tax Abdul euh, Hajjaaj ci boppam wax na ko ne ko est-ce que gis nga li ma def jaamu euh, noonu yàlla bi Abdullahi mooy jaamu yàlla mu ne ko aduwullah mu ne ko lenn de xam naa ko mooy yàq nga addunaam waaye moom yàq na sa àllaaxira te lii asma moo ko wax mu ne xajjaaj li nga ko def nii xamal ne yàq nga àddunaam moom abdullah ibn zubair waaye moom abdullah ibn zubair yàq na sa àllaaxira loolu musiba bu rëy la yàlla nañ ci yàlla musal ba waa màkk ñëwee di ko di ko jaale doom ji dañ ko ne na muñ mu ne lan moo may tere muñ bu fekkee ne yaxya doomu zakariya sax boole nañ ko ak yahud yi ba ñu rendi ko waxuma la ak man sama doom ji kon kii mën na nañoo jëlee ci moom muñ ci bépp fitna bula la munti dal lumu metti metti kenn xamul nakaru denc sa dom sul sa dom ludur dul ku mu dal waye bu la dalee itam na nga muñ xamne dal na yenent sallallahu alayhi wasallam dal na sahaba yi kenn ci ñom mo ngi ni muy asma bintu abi bakr yàlla na yàlla gëreem leen ñom ñep yàlla yóbbu leen ci illiyiina waye ci suñu mbegel ci ñom suñu wegel ci ñom yàlla nañu yàlla yëkëti ba ñu mëna dund ak ñom ci firdaws bi jaahi rasulillah indallah